voilà ñu ngi ci actu Thiès euh, point com di dalal euh, Abdoulaye Faye di mag bu nekk ci Gueule de euh, Pape xam ko mu nekk nag kenn koo xam ne gis nañ ñu ngi def ay actions sociale yu bari jëmale ko nag ci li nga xam bi parce que bu ñuy rek wane woon nañ fii plan boo xamante ni muy benn établissement boo xam ne mu ngi koy tabax établissement boobu nag li ci nekk ci ay kuréel bëri na daara ak juma ak tamit poste de santé ak yu mu nekk nag ay mbir yoo xam ne. toujours Actu Thiès da koy topp boobu ba tamit gis nañ mu jënd ay xar yu bare koy maye euh, ci ñi nga xam ne rek moom mooy askan bi dem na sax ba ci wàllu seet jënd fa ay xar euh, tamit ñu gis ñu tey ñu ngi ci tamxarit euh, ñu gis ñu dana loolu ëpp fukki ak lu topp ay nag di ko maye ci li nga xam ne mooy askan bi ñu bëgg ko rek laaj moom Ablaye lan moo waral mu def loolu. asalaamaaleykum. waaleykum maa ngi nuyu waa Sénégal di nuyu waa àdduna bi di nuyu waa Thiès di nuyu waa Mën Nafar di rafetluwaay seen teewaay bi ngeen teew fii loolu nag boo gisee ma def ko def ma ko pour wonewu pour ngis tër xëy na yéen sax lu tax ngeen déplacé ñëw pour nit ñi di si roy lu baax ki nga xam ne dafa yor alalam di mun si yor lu baax pour di si def lu baax man xam naa loolu moo tax ngi ñëw waan fekkoon man rek rek man ma ko wane parce que def ma ko pour nit ñi dama ko def pour yàlla rek tax waaw xam naa yéen nag loolu ngeen bëgg loolu nga bëgg pour ñëpp ñëpp képp koo xam ne yor nga alal nga yàlla mënul loolu nga nga nekk borom doole nga nekk borom alal nga dimbali ñi nga xam ni ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo néew doole. alors très bien suñu euh, tey dimbali néew doole yi mais ñëpp xam nañ tabaxarit am na luñ ci wax yéen ay sëriñ ngeen da ngeen di liggéey di jëflante ak nit ñi di jël seen i addiya di jël seen i weexal ñu di fay ngeen leen jàppale euh, tey est ce que wax tey jëf ci nga jëf yow fan nga ko naat. non jëf bi moo jëf damaa xam ni nit du def lu baax ba pare di am lu bon. àdduna boo si nekkee dangay def lu baax rek bis booy def lu baax yàlla di la defal lu baax parce que xam nga weer bi nekk na weer boo xam ne du ñëpp ñoo mën a jën ndawal du ñëpp loo mën du ñëpp seen loxo jot seen gannaaw te ñu ngi si mën naa wax sax crise ndax corona bi mu ngi fi leneen leneen mu ngi fi liggéey yi ni waroon demee xëy na xaw xëy na xaw naa des daal kon lool bu yàlla defee man mi nga xam ne yàlla teral na ma loolu ma mën ko te ma jaaroon ci bu njëkk ba dama doon gis sama yaay di dem di ràng lu mel ni lii di ràng ñi koy jox ay ay ay ay ay ay ndawal du ñu indil yenn saay ma am yenn saay du am ñu boole yëpp muñ yenn saay ni am yenn saay du am ma gis loolu teg ko sa teg sama bët kon gëm naa ni bu bu demee ba yàlla mënuloo ma loolu dama ko war a def def ma ko nag pour ngistal def ma ko pour dara dama ko def te yàlla rek tax parce que gëm naa ni lépp loo def te yàlla rek tax yàlla dina la jàppale loolu moo tax mu def ko. alors Ablaye da toujours da ngay ni euh, sa yaay dafa dundoon situation bu ci Ndour. ak uh-huh. uh-huh. uh-huh. waaw boo gisee loolu boo gisee loolu boo gisee loolu ba ma koy def pour euh, dama gis sama yaay di ko dund dund lu metti di dund dund lu metti di nekk si ay xat-xat yu metti di dem di liggéeyi yàlla xam na ni sama yaay lu mu da doon sonn sonn boo xam ne da doon dem ba usine yoo xam ne day tey ay cere wala isin yoo xam ne day defar ay lii danga gis mu jóge foofu dem ñëw taal añam am ku ko toggal mu ñëw delluwaat foofu posaat ñëwaat yekk delluwaat soono goog ñi koy daj parce que am na nekk na danoo nekkoon new doole yoo xam ne mën na woon am na woon li ñuy dundee mu nekk lu metti sama yaay dem na ba instant yi man instant yi sama dund dafa metti ba sama yaay amul fu mu liggéeyul lu mu lépp lu nekk liggéey na ko ma sama papa pour nu ñuy dundal mu nekk lu metti ba yàlla tey tey tey def na tey mu jeex alors tey bu ñuy xool euh, ci loolu nga wax euh, sa say waajur dund nañ ko ci ndóol ba tey yàlla defal la sutura nga am teraanga. Uh-huh. Euh, ci faj bi ak ñaan ngay ñaanal nit ñu lay weexal ay millions tey nga delluwaat dañ koy delloo ci biir askan bi sëñ Ablaye loolu est-ce que tey mën nga ñu ko méngale ak li xam ne mooy taxawaay bi nga xamante ne amoon nga ko démb ak boo gisee tey ma def ko. xam nga yàlla mooy maye te yàlla rek moo mun. te man damaa nekk nit koo xam ne bëgguma di tas yaakaar kenn parce que man mii bu nu tasoon sama yaakaar duma neex moo tax lépp lu may def damay wax nit kii dama la ñaan ba nga gis nga doog maay fay parce que bugguma tas yaakaar kenn comme nu mu demee mooy ñi nga xam ne ni doonoo nekk boroom xam-xam comme man nit ñi yaakaar leen ba ñu yëkkati seen alal xam nga tey nit ki nit ki bu nekkee si ne dalaa yaakaar sëriñ bi wax ko yow boo defee nangam ak nangam ak ndangam ak nangam boo ko defee li nga bëgg danga koy am sut mu yor ko wala mu bañ koo yor bu ko yoru mu dem leb ko xam nga bu demee mu lépp loolu leb lu tollu ay mu fekkee sëriñ bi da koo laaj 3 millions wala 4 million mu laaj ko ko mu dem lijjanti loolu ba jox ko ko. te leer na ko sëriñ bi li muy wax li mu koy wax nii ay naxaati la day fen wala du du ko du am kon tas na yaakaar parce que tey nit ki boo ko laajee loolu nga wax ko dinaa la defal lii ngay am fekk yow li la leer na li nga ko wax nii amul am na ñoo xam ne dañ si tayle seen kër da gis ñoo xam ne dañ si tayle seen kër. jël xaalis bi jox ko sëriñ bi te sëriñ bi lekk xaalis bi te lu leen leer la lii amul am nga loolu dafa rafetu tas yaakaar la kon kook lu mu doon dund lu lu mu doon dund li métti loolu ba ñëw si yow kon danga nga ko tegaat beneen dund bi gën a métti boobu loolu moo tax man loolu lépp man damay toog xalaat parce que nit ku nekk boo jaayal si lu métti il faut nga toog di xalaat moo tax li may xalaat moo tax bëgguma kenn ku koy def mooy maaraay mooy man mooy kenn ku muntu doon nit ki fekkee li ngay def mën nga ko carrément wax ko mun naa ko boo ko mënul bàyyi ko mu dem man loolu laa jàpp ni loolu mooy àdduna te si loolu nag moom laay def ba tey te chaque jour mosuma si am benn problème wala ni woo ma di ma wax a ah Ablaye nangam nangam nangam nangam mosuma ko si am lépp lu ma si am alhamdulilah li nga ma ñaanal gis naa ko parce que dama ko teg si yoon te isaal te dama am xol yéen ma ne si ñëpp. ndax bëgguma ko sonn bëgguma ko jaaxle mooy sañoon képp ku ñëw si ma rek damay defal lii moo tax kon sëriñ yi bu fexee ba nit ki jël lu toll xaasam jox la fekk leen na yow sëriñ bi yow li nga koy wax amul kon du kon yokk nga coonam bu gën a bi taxawal mu ñëw si yow pour mu faju da nga ko beneen coono mun naa wax da koo raay sax benn yoon kon ñun maaraay nañu respecté si loolu affaire ku ñun waxee ñu tuddee dóor amul benn sens parce que wala yaakulu amwaay nas bi xayri im nafsin yàlla moo wax ko loolu kon nit ki boo demee ba jël loo xam ne nga yaa ngay lekk loo xam ne léwul balaa ngaa dee sax nga gis ko kon gëm naa ni nit ku nekk waru yàqamte wërsëgam li la war yàlla war a jox boo góorgóorloo di nga ko am kon jarul ngay nax nit ki di doo nit ki jóge fi dem fi dem fi man benn numéro laa yor te sama kër laa nekk man man xaw ma sax xalaat pour di doo nit parce que bu ma doo nit ki fan laa jëm. moo tax du ma ko def moo tax lépp lu may def dama ko teg si yoon moo tax aw ma sans interdit fenn amul fenn fu may làqute wala bu may daw te ku ma woo ma jël la xanaa boo ma woowee jël ma la yenn saa yi nag yenn saa nit ñi woo ma du ma duñ ma jot. loolu maa ngi si jéglu wird yi may def wala ñaan yi may def wala man nekk si xat ay mbooloo te bëgguma wax téléphone te man aw ma adjoint aw ma secrétaire man maay wuy sama bopp téléphone ndax wóolu ma kenn parce que commencement bi dafa am lu ma mosoon dal si ñoom benn adjoint bu ma jiloon muy laaj client yi si suuf loo xam ne yëguma ko. dina seen ab di leen def looy ay affaire dina laaj xaalis te yëg ma ko. après loolu nag à la fin feeñ na ba ma génn ko sama mbir parce que man lépp loo xam ne li tilmal sama der bii bugguma ko lépp loo xam ne lu may wàcc sama personnalité ak sama dignité bugguma ko sa dignité rek amatoo desatoo fa dara. très bien am na solo. Mhm. Euh, si Ablaye beneen bi mooy fan yi gis nañu benn nag bu ñuul. bu ñu rey def ko ci benn cimetière ci Mbour. armel euh, def am na sax enquête boo xam ne police ubbi na ko ci gaa ñu ne kooku fétiche la ñu def pour faagaagal ay nit wala nit mu nekk loo jëf joo xam ne Sénégal yëpp a koy ñaaw yéen en tant ay sëriñ euh, ndax ngeen koo jàngal. non xam nga loolu dafa rafetul si benn côté. parce que bañ na loon dana wax armeer mm-hmm. loo xam ne ay nit rek lañ tey denc nag li ñu si xam mooy lekk wala saraxe wala bu deewee nga nga nga suul wala boo suul nga suul ko feneen waan du bokk ay nit fu ñu nekk doomu aadama dañ ko war a respecté nit dafa foor ba mu tax yàlla bind ñun mu ñu gën si mbindeef yi gën si nit moo gën si lépp lu yàlla mën a bind kon nit dañ koo fonk kon kii def loolu def loolu ñaaw parce que affaire fétiche yooyu xam nga nag bu ñuul moom baaxul nag mu ñuul kuk kuk kuk kuk lenn moo mun a am mu mu fay wax wala mu fay nit ki wala mu liggéey nit ki mu fekk si nag nag bi si suuf. maanaam dañ ko def pour fay ay wax wala pour faat bakkanu doomu aadama mu fekk si nag bi. wala wala wala wala wala wala ñu def koo xam ne comme ku yor loolu baaxu si ku yor si nguur sax gu yor nguur baaxu si parce que dalay lëndëm lëndëm nag mu ñuul dafa lëndëm dalay lëndëm ne day lëndëmal sa mbir bay sa mbir day jaxasoo. maanaam dalay gëlmal. dalay gëlmal yàq sa mbir yëpp lëndëm lëndëm ngay dëkk rek. maanaam ku yor nguur nag bu ñu bu lay jëfee li ñu lay def ba dugg si def ko si si si nag bi suul ko suul ko noonu yow lëndëm lëndëm ngay dëkkee rek. wala ku ay nit. ay jiite ay def la ko yow sa nguur wala sa leneen lëndëm lëndëm baaxul. maanaam da waaw nag baax na si benn côté mooy bi nga xam ne dafa am benn melo wala bu weex wala bu am bi nga xam ne mun na am ay yeneen couleur yoo xam ne waat bu ñu kukki ba moom lëndëm lëndëm lay jur te lëndëm lëndëm lan ko kenn bëgg ko. parce que fekkee leer nga bëgg alal nga bëgg wala teraa nga lu weex ngay def loolu mooy indi alal alal dafa weex alal ñuulul alal dafa weex tal da ngay dégg ni waa oko ne ko daneeja oo ko ne ko ko danee ji mooy kii dafa weex mooy kii nit wërsëg la wërsëg dafa weex ñuulul ko lu ñuul lëndam kënam baaxul moo tax nag boobu mi def boobu baaxul loolu mooy liggéey bu bon la kan moo ko def wan baaxul surtout yaa ngi suul nit ki moom benn mooy un wala wala ku yor loo xam ne dafa fort kilifa nga suul ko foofu li mbiram ñëpp day lëndam lëndam nag bu ñuul baaxul parce que lëndam lëndam kenn bëgg ko. pare kat ci lañ ko yàq. kon ñoom jot nañ ba nga xam kat kat bu ñu leen ko yàq. ki ko gis ay 3 heures du matin jàpp 4 heures nee na. loolu mooy lu ma la wax rek baaxul si nguur baaxul si kuñ ko def. parce que na ma yàlla baal lu gaaw jàpp la. loolu nag si biir armeer lu gaaw jàpp la baaxul xam nga ñin. yàlla danoo xamal lépp. waaye duñ def lu bon. man ku ma ñëw liggéey ma dootoo ko defati. barke Seydina Muhammad man duma liggéey kenn. du parce que nit nit nit dafa war a yor xol bu rafet. parce que tey bu la liggéeyee nga nekk koo xam ne ngay jaxasoo wala nga nekk ku dof afa yooyu léegi loolu yërmande nit dafa war am yërmande parce que xool ko sa bopp. nit boo xoolee xoolee sa bopp rek li nga xool sa bopp rek doo ko def keneen. parce que nit ku nekk li li nga yéene sa bopp yéene ko sa sa moroom parce que ala kul ay bis yow ma qiyaama dina am te dina ñëw te bis bu ñëwee di ko laaloo sa borom. kon lan moo jaral nit ki di fekk nit ki nekk si jàmmam nga neloo ko yàq addunaam ndax iñaan wala xas du iñaan dafa iñaan dafa tardé. te ku ku koo xam ne dafa iñaan nag dangaa ngaa tardé kon ñi nga xam ne dañuy nekk di def lu bon nañ ko baax. man de kenn amul kenn ku mu ñeme wax Ablaye mus na ma mus naa liggéey nit amul kenn ku ñeme. amul kenn ku ñëwee wax Ablaye di liggéey na nit. du man nag du man nag am na loo xam ne ànd naa moom boo ma tooñee moom mu daal sa kaw liggéey ma la loolu mooy jinne yi ñoo dal sa kaw rek. waaw boo ma tooñee. Mhm. wante duma la liggéey dumbal xool barki Seydina boo tàngalee sama xol duma la def dara. billaahi wallaahi wa taala duma la bind duma la xaatim duma la damay bàyyee sama suñu boroom ak li nga xam moom la àndal mu nga léegi nga gis loolu faju ko faju kon ñi nga xam ni am na ñoo xam ni nit bu demee ba yàlla def nga am borom daraja nga nekk dara daraja waa nga nekk ni yenn saa yi nga gis ñoo xam ne man gis naa loolu lépp tëdd naa ba gis gis naa loolu gis naa yëpp am na ñoo xam ne ani yëm ma am na xam nga nit du ñu iñaan iñaan baaxul maaraa comme man wala ñeneen war ñu soxlante suñu biir ku nekk li nga war a jot di ko jot te alakul ay dóorkat yi dong dong dong dong dong dong dong ñooy jéem a di yàq nit ki waaye ki nga xam ne dafa day ñaante yàlla rek tax amul dara lu mu gis lu dul góom yàlla rek ko du def lu bon parce que yenn saa yi gis ñoo xam ne dañuy fay ni fay leen ay ay xaalis ñu dem si euh, réseaux sociaux yi di yàq benn sëriñ wala di yàq benn kilifa te te dañ koo fay de te li mu koy waxal dara amu si man xam naa nit ku nekk bu la yàlla mayee daraja boobu ala kul ay loolu dina am da nga gis ñoo xam ne dañuy fay nit ki wala mu dem fay ko ay nit ki jëm si commentaire yi di def lu ñaaw di wax lu ñaaw wante loolu lépp bu ñu ko defee yóbbu leen faal bu tontu yow li la war ak sa diggante sa borom rek ak askan bi rek def ko. def ko alors euh, très bien am na solo mais si sëñ Ablaye am na la fi waxoon euh, laata 2 mars laata virus bi di dugg ci Sénégal ne woon nga am na jàngoro buy ñëw il faut président Macky Sall saraxe. Euh, mhm. pour fànk jàngoro jooju wala musiba boobu. alors euh, fan yee paas bi ñu ko ñëwee aussi waxaat nañ nga ne dina am kilifa yu bëri génn àddina mhm. te tey Sénégal li fi fiy lim ci kilifa par bis génn àddina nekk na lu doy waar mhm. euh, tey ban ñaan lañu war a xam nga ñaa ñaan moom mooy na ni na ni wàññi affaire xam-xam yi boo si ñu jàng daal jàng ay téere sarxe jaamu yàlla daal dañ ñëpp ni delluwaat suñu boroom wàllu seet yàlla moo koy def nit man wax naa la damay jàkkaalu ay seetu di xool di jàkkaal ay télé di xool di jàkkaal sama téléphone bii di xool di dugg sama biir oto sax damay si seet am na ñoo xam ne client yu man bu ma leen seetal dama leen nëbb dama carrément maa ngi si sama biir oto di seet dama ko nëbb li may def te lu ma la wax da ko teg sa bët kattoon yàlla mën naa nekk fu ma neex daay dem di seet duma ma leen baale dara loolu mbir yàlla la loolu yàlla bu ko defee si yow da nga koy koy sante parce que dund naa lu métti ba tey yàlla def nu lii moo tax nit daal na def lu ko wóor ba tëddee nelaw yàqamti alal ba nga ba mu lay dugaloo loo xam ne ëllëg si biir leneen xaj na si loolu jaru ko fi parce que lu sa wërsëg yàlla bind na sa sa jéebi avant ngay dund avant ngay judd kon lu sa wërsëg di nga si jot nañu def ndànk rek tey dal rek yàlla dina jëf lépp incha allah. très am mais Ablaye aussi gars yi ne leen sëriñ yi dañuy xeexante seen biir. Mhm. léeg-léeg sànnante ay bagages xamante ngeen quoi. waaw est-ce que loolu dal na la parce que yow xale nga wala est-ce yaa ngi préparé wu ci loolu. ma maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax dolagu ma parce que bàyyi ma sama bopp parce que danoo wax balaa ngaa jaay balaa ngaa raax laax jaay nga laax lekk hmm. waaw. lépp lu may defal doom aadama yi mooy alal mooy teraanga mooy xéewal mooy wóorsëg mooy lu lay aar dama ko njëkk sama bopp ba pare ma doog ko nit ñi parce que nit ki munoo wax da ngay aaraate doo sa bopp munoo wax nit ki da ko defal mu am alal te yow doo am alal moo tax lépp loo xam ne def naa ko sama bopp laa ko njëkkee ba pare gis naa nag nit ñi moom am nga soxor moom comme lu mu la ko waxee rek yàlla xam ne am na nit yàlla yoo xam ni ñu ngi ñaan te duñ def lu bon te lu ñu ñaan yàlla nangu ko loolu si xol la yàlla bëggu cër bëggu yaram bëggu rafetaay bëggu dara lan la bëgg si nit xol sa xol bu rafetee rek loolu ñaan suñu yar suñu borom mu antu koo ñaan mu antu koo diggante téléphone sax laa wax diggante téléphone sax si incha aajam mun naa faju ndax yàlla mooy def ni suuf sax boo ko yëkkatee jox ko nit ki moo ko demal yàlla antu parce que day am noo xam ne da am foo xam ne fooy toll sa jour ak sunu boroom nit ki yenn saa dina xam ni bu jegee sunu boroom xam na bu jegewul sunu boroom xam na parce que yow loolu yàlla moo koy def ci nit ki ak xolam ak xelam ba loolu am d'accord ñu ngi doon wax euh, ci kii bi ci jikko yi ak ki ñu mel ak ñi nga xam ne ñuy song nit maanaam yéen seen sëriñ si seen biir léeg-léeg ñu gis ni kii war nañ koo song attaqué ko daanal ko faagaagal ko parce que ñu ngi yàq suñu liggéey wala ñu gisatuñu kenn. moo tax nit dafa juum nit day juum chaque jour nit day def loo xam ne léegi yow ki nga xam ni man wala sama benn mm, sëriñ ku nekk doo lekk sa wërsëg morom ku nekk sa wërsëg ngay lekk kon lan moo fi jaar nit ki ngay xeex sa morom sëriñ. gis nga adduna ba xam lan moo moo war a gis nga moo war ak sëriñ yi sëriñ yu baax yi de wax ma yi nga xam dañuy dóote yu baax yi dañoo war a ànd bokk bokk nay ak baay. parce que boo xoolee nit ku nekk doo lekk lu sa wërsëg kon lan moo ko fi jar man nit ku lu mu am yéene naa ko yàlla xam ne man ñëpp laa bëgg na am jàmm ñëpp laa bëgg na am alal ñëpp laa bëgg na am teraanga. aw ma li iñaan parce que man nekk naa xam nga am na. doomu aadama yoo xam ne bu ñu amee alal dañuy dañuy bëgg ñoom kes ñu am te loolu du àdduna loolu loolu xool iñaan moo lay dal moo tax doo bëgg keneen am yow da bëgg di am rek man damay bëgg ñëpp di am parce que loolu ma àdd gis nga alal du dara lépp dañuy dee bàyyi ko fi ay lii lépp li ngay gis ay nett rek lay mujj kon nit ku nekk li la war lu baax def ko moo tax man lu baax rek laa xam di def social yi may def nii lu baax moo tax ma nga def parce que tey bu ma neexoon benn xale bi nga xam ni dafa feewoon feewoon xel ma jël ko à Sane fay 6 millions et quelques faj ko Europe mu wér te xaal ma si kenn loolu kan moom koy fay yàlla moo fay ak leneen la may def social yi may def def ma ko pour ngistal def ma ko pour dama ko def. pour ay oto parce que gis nañ ko ah, am na yoo xam ne gis nañu bon ku la ay s'appelle Ousseynou Keita moom it may nga ko kër moom mu def témoignage boo mbëkkante fii ak lépp gis ko ak aussi am na koo xam ne may nga ko oto ak yooyu may c'est-à-dire may dafa yomb ci Ablaye quoi xanaa ni ngay amee dafa yomb <laughs> non mun naa wax maa ngi sant yàlla bu baax lu waral may sant yàlla bu baax wax naa la man dama am ay taalibe yoo xam ne danoo baax li ma nekk ñu ngi si ñoo xam ne yéen ñëru woon dara man ñaanal ba yàlla def ni nekk ay milliardaire di ma yónnee lu nekk am na man lu ma bu ma joxoon suba suba mu soxla 200 million bi leewal ak ñu yónnee ma ko. san millions bu ma ko soxla ñu yónnee ma ko 60 millions bu ma soxla ñu ko te duñ si xool kenn te ñoom ñëpp ñu ngi may gis ñu ngi may seetaan. danoon dem ba instant ay yéen sama yenn kon yi sax moo ne garaam dañ ko ëpp dañ koo tëj dañ koo bloqué riaay yooyu yëpp dañ ko bloqué bay bay commencé di utiliser yeneen tur benn kilifa boo xam ne dama ko ñaan ba yàlla def mu gis. day doon yónni yónni ba instant kooku ki nga xam ne moo nekk si service bi service bi xam nga yaa xam mën a garaam woo ko ma ko xoolal lex bi ma gën ko sama numéro xool numéro bi li muy dugal dafa bëri. kii lan la ki wax ko benn sama benn maaraa la kii maaraa la ki jaayu dorog dafa tar ak kaa bokk si dafa si beneen bi mooy mooy. Euh, turuliste ak yeneen. defu ko kii lu baax rek lay xam. lu baax rek lay def. loolu lañ ko wax billaay tubaab yi dañ ko woo wax ko kon. nga gis ay ay tubaab yoo xam ne dañu déplacé bitim réew di ñëw di dagg ay bee di ñëw man kese te loolu yàlla moo ko def na am na nit ku ñuul ñëw ñëw mu si man ne am ay parce que da ngay gis ñoo xam ne dañuy am problème ak fu ñuy liggéeyee man nag tubaab xaw ma xaw ma parce que am na koo xam ne ay milliards milliards milliards la am fa problème man xaw ma problème lan la la ñu wax ma man sa ñaan am na ñoo xam ne dañ déplacé dàgg sa mbéy ñëw ma ñaan sa yàlla def mu loolu fay. loolu bu ñu delluwaatee di ma di ma defar teraanga bu nekk. am na am na koo xam ne daf ma wax heure boo ñëwee bitum réew ma jox la kayit kër foofu sañ la ko jox la ko mu may ma fa kër mooy États-Unis Washington DC te kilifa ko waaw Washington DC nee na heure bu ma ñëwee man moo ko nag feebar moo tax. waaye incha allah dinaa fexe ñëw moom heure boo ñëwee doo yóbbu te yóbbu doo dem te yóbboo sa kay kër ak yooyu foofu kër bu nekk foofu man maa la ko wutal te yor ma si benn yor ma si yor ma te jabar tubaab la am na ko. parce que yow li ñoom ko dañ koy gis parce que xam nga loolu yàlla moo koy def gis nga loolu damay dem ba affaire damay jaaxal nit ki nga ñaanal nit ki mu sotti chaque jour mu sotti yób ma ool ni mu jaaxlee ñoom ñoo la ma jaaxlee de. barke Seydina Mohamed li may nu mu jaaxee nit ñi noonu la may jaaxee parce que xaw ma lan moo koy defal noonu lan moo tam mu gaaw te parce que xam nga loolu chaque jour ak résultat yi nga am. loolu na nekk. jinne moom mu ngi si wala yàlla mu ngi si. mais il faut ñu génne bagage yi quoi gis ko. non bagage kenn dañuy war ay salon woon dem ci àll bi quoi ñu xool Ablaye ci kump lay doon. wala jinne dañuy bagage yi kump lay doon. kump lay doon quoi. que gis nga yàlla suñu borom sax kump la. <laughs> tey ba nit ñi buñ ko xamoon il faut waxal ko dara wala nii dina am nu ñu demee moom kumpa la. dañuy gis ay sëriñ ñu génne seen i bagages man man ak ñun bokk nu man kii xam kan moo koy gis ki nga xam ne moom laa sëkk rek comme yow wala ma sëkk keneen kooku dong yaay gis sama bagage mi nekk ci kaw waaw ku du loolu du caméra du filmer da du ko nangu. parce que nangu yow ñuy filmer say bagages du ko nangu. yow daal lañ la fekk doo sa jël mm, man nii donc simple rek. man teg iPhone yi <laughs> laa bëgg. maa ngi jël am sa la ndax ma woo ñu waxtaan mu ne ma <laughs> moo may loolu ci ndeysaan modeste nekk koo xam ne ku oyof la wala ndeysaan bu ñëwee ñu waxtaan ci lu bare bari mm-hmm. alors am na ay sëy yoo xam ne dañuy am ay yàqu-yàqu mm-hmm. bon ñu bëri dañu ne seen euh, bon seen goro yi mm-hmm. ñoo koy def maanaam seen jigéen seen euh, bon nuñ ko xom nuñ ko waxee sax. seen goro yi ah, seen seen pas seen goro yi mais aussi kër bi dañuy sëy si fekk fa seen rakku jëkkër yi ak seen magu jëkkër yi ñu ay jigéen sëy wuñu mais duñu bàyyi kenn sëy mu nekk ay jafe-jafe ñooñu ñeneen ñu si gën a bëri dañu ut ay sëriñ di yàq seen sëyu uh, càmm yi. waaw loolu moom am na ñu koy def waaw loolu baaxul wan ku jigéen ki moom lak lay waxal man ki jigéen ki nga xam ne mooy sëy foofu na ngi yàlla war a suulihi na muñ parce que lépp lu antu muñ dara du fa sotti loolu mooy un mooy mooy excès respecter sa borom kër. respecté sa sa yaay boroom kër respecté sa rakk respecté yi nekk foofu yow defal li loo mën rek xëy na boo defee ba ñoom ñoom soppiwul muñal rek yàlla dina la indi benn doom ba xam ne ni muñ boobu nga muñ dina la teral ni ñëpp di rus kenn mën si dara moo tax muñ am solo boo nekk si sëy muñal rek xëy na du ñàkk nag am na ñaay ñoo xam ne dañuy jël ay gàllaaj di def di yàq ñoo bàyyi leen ak yàlla yàgg ya dañuy gis. loolu ci dafa émission spéciale euh, tey xam naa ni. <laughs> non suñu Ablaye loolu la. waaw parce que damay gis. Mhm. ñoo xam ne dañuy wax am jëkkër am far te loolu dafa rafetul nan wax te dégg jigéen jigéen dafa war a respecté boppam boppam respecté mbokkam parce que man dama bëgg man moom dama bëgg jigéen bu mel ni sama yaay. ñun ay lakkat lan ay deret deret mooy da deret góor mooy dor mooy daw ci nu deret bi ñun mus nun am jigéen boo xam ne dafa dafa ëmb te amu borom kër ndax ñun dañ koy daw ñun gàcc ñun ñun dañoo ragal gàcc moom ma dëgg yàlla ku si amoon te ya amul amul suñu famille ku ko si amoon doo ba muytu doo fanaan muytu da ngay xaru parce que ñun am attu nun gàcce boobu ñun ay lakkat lan at nun gàcce boo xam ne da ngay def loolu tu moo nit ñi nga xam dañ koy def nañ ko bàyyi très bien xam naa dinañ amaat occasion pour ñëwaat wax ci euh, Abdoulaye Faye euh, nekk sëriñ nekk fii ci Medina Fall tey ci tam xarit bi nga jënd ay nag yu bëri euh, ray ko maye fii pour jaamu ci yàlla wane tamit nii jaaro nga situation yoo xam ne bëggoon nga ko def mais amoo ko tey bi nga ko amee nga koy bokk ak askan wi. waaw nag yi moom boo gisee ma koy def def ma ko pour ngis ta comme la ma ko waxee. Hmm. man dama def kër bu kër bu ma am bu nekk tere naa fa ay nag. muy fi mën na faal muy base muy feneen feneen yoo xam ne ay gox yoo xam ne am naa fa kër te man la ma xool ma dem ba xool seen situation tëra naa fa ay nag am na ay nag yi sax yuy des yoo xam ne dañuy joxe ba mu des des na sax te loolu sant yàlla la def ma ko pour ngis te benn xaalis kenn dem sama xaalis la billaahi wal azim sama xaalis laa ko jëndee te loolu lu gëm naa lu baax la boo ko def yàlla da gën a yokkal sa lépp parce que ñun ñëpp ñoo am moyen jënd. jënd ndawal ak période bi ñu nekk nii moo tax ma koy def. léegi te comme lu ma la ko waxee rek lu may laase encore comme président Macky Sall ay bu may tëjoo moom laay tojoo parce que sama. sama sama mbokk la sama lépp la mbokk lakkat la na jàppale askan bi dimbale néew doole yi. mais képp ku ànd ku képp ku dimbale néew doole yi damay damay ànd ak yow. Ah, moom wax nañ jënd na nag yoo xam ne may na ko. ah macha allah kon yëgu ma ko yaa am ko wax. kon alhamdulilah Macky Sall na la si yàlla yokkal xéewal parce que loolu lu baax la. man gis nga man xool ma nit kii li moom na def lu baax rek. parce que gis nga ñàkk dafa métti man dama ñàkkoon. Mm-hmm. te jamono bëggoon naa ku may dimbali. Mm-hmm. kon bu fekkee yàlla tey woon na ma tey mu jox ma teraanga jooju ma koy dimbali. loolu sant yàlla la léegi yóbbu nañu ko ay Masaalikul Jinaan ak yëpp ah. wallaahi ah loolu jot na information. ah loolu lu baax la. Mhm. loolu rek loolu lekk nit ki nit ki il faut nga am xolu yërmande pour nga mën a defal nit ñi loolu Macky Sall du ko ñàkk. Mhm. bu ko bu ko bu ko yàlla fayul fii dina ko fay feneen. dina ko fay alors très bien merci beaucoup mu nekk message bu am solo toujours rek mooy jàppale néew di doole yi parce que njiit yi loolu moom leen moom lañ leen tànnee pour ñu jiite pour rek ñu mën a gëstu ñëpp nekk ñëpp nekk à euh, égale dignité alors euh, sëñ Abdoulaye bëgg rek nga tàggatoo mais joxaale ñu aussi numéro téléphone yi waaw sama numéro moom comme ni ma benn numéro rek laa yor. maa ngi jégalu gars yi benn numéro laa yor ku ma woo jotoo ma gis nga sama sama ba léegi sama téléphone ngi nii di woo jotoo ma maa ngi jégalu bu baax a du loo xam ne man maa ko tey wala ma bañ laa jël te fekk may toog ay nit bu li may wax secret lay doon bëgguma kenn yëg ko na nekk ñu ñaar kese ak yàlla bëgguma may toog ay nit di wax wala mu may ku ma si woo jotoo ma maa ngi jégalu bu baax a baax client ak message yi bu ma si liiru rek damaa jàpp bu ma kenn jàpp parce que aw ma adjoint aw ma secrétaire lépp maa koy def sama bopp sama téléphone mu ngi nii lépp maa koy def sama bopp wallaahi azim kenn du kenn du ma wuyu téléphone man maa wuyu téléphone parce que wóolu ma kenn comme maa ngi jéglu bu baax numéro bi mooy 77 267 50 61. jërë ngeen jëf mbokk xarit euh, euh, rek bi mu jëndee loo fukki nag ak lu topp euh, ray ko ñun nag dañuy wax toujours dañu foo ñu teg suñu bët ñu doog a mën a wax. moo ñu waral tey ñu déplacé wu ñëw ko mais également ziare ko profité ci tamit euh, baalu ak askanu Sénégal yëpp ak àdduna wërngal këpp di ñaan yàlla coronavirus féete ñu ginnaaw